دفر سمقل دارا دفر سمخل دارا ما ممل موتخ مويدا tey Daaru Xuda jëwriñ ñi di sëriñ Xaadim eh, eh, kun xaafilan bul nekk mbaam daara xiif tilim rafle ak coono ci daara moom laa fa daj tuuti ma daara daara defar sama xol daara defar sama xel daara ma def ma mel moo tax ma wéy doo juum ba saaga yaay mbaa sax nga saaga sa baay ci yar sa njaboot lii mooy jëfub daara jëlal sa doom jox ko daara doo ko réccu ba faw daara jagal ñi ko daara doo ko réccu ba faw mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel Mouride TV ñu ngi leen di nuyu rek di leen siyaar bu wér a wér a wér euh, di leen baalu àq di leen baal àq bu wér a wér euh, di amati mbégte rek comme ni ñu koy waxee saa yu ne nekk ci suñu jotaay bi nga xam ne moo di jotaay émission ndongo daara yi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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم mbay Mbaye ma sha allah ci alquran ci sel ju matala ju nga ñu taril am solo lon kon suko defé rek suñu hadim dañ lay jox suñu cadre rek nga nuyo ak askan bi nga xamne ñolay baye xel ci émission bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi TV Yang lain di nuyu di nuyu soxna Fati Yang ngi koy nuyu bu baax ak ñi mu di leen ziyaara di nuyu waa daara di turu dari internat Darul huda di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa Mouride TV dal ak jàmm fii ci ëttub daaray daarul huda incha allah rabbi soxna Faati kon gannaaw nuyoo bi eh, di leen wax marhaban bikum dal ak jàmm Sëriñ Xaadim ci nuyoo bu matale bu sell bu nga xam ne eh, nuyu nga ko waa Mouride TV waaye ci dalal bu mm, sell bu itam nga xam ne dalal nga ñu ko Euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax di tàmbali rek suñu ay laaj ci sëñ Xaadim euh, fi koy dooree nag kan mooy sëriñ Xaadim Ndiaye. waaw jërëjëf soxna Faati xam na njëkk lool di ñaanal sëriñ Muntaxa Basiir di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ak mboolem xalif euh, kan mooy sëriñ Xaadim sëriñ Xaadim bu ma soñoon sax émission bi dañuy wax Xaadim wala ñuy utiliser xadim aji liggéey ndax. loolu lan fas ne jeexal suñu dund sëñ xaarim nag ab donga la buy xeeñtu bu mbaax bokk fu baax amul leneen lu mën a def lu dul dem a gëstu lu baax te di ci xëy di ci gont gannaaw ci gàttal daal ci gàttal ko ba mu gàtt ab donga la boo xam ne juddoo ci ron keppaar ñoo xam si ay murit lan ay taalibe lan fas yéene doon ab taalibe mm. kon ci gàttal suñu xaarib ab donga la ci biir donga yi waaw kay uh, jërëjëf sëriñ Xaadim ci leeral bu am solo boobu nga xam ne leeralal nga ñu ko uh, sëriñ Xaadim ñu fekk la fii ci daaray daarul huda ngay jàngale li nga xam ne moo di alxuraanul karim uh, kañ nga sañ ci daara ji di daarul daara ji ni ngi ko sañ ci 2008 janvier 2008 kon ñu ngi mel ne ñu ngi suñu anniversaire 2008 ñu ngi ko sanc 2008 2008 lañ ko sanc 2008 ngeen sanc li nga xam ne moo di daara ji euh, daara gi daaray internat la wala euh, daaray cosaan la waaw daara ji dafa am ñaari fan am na internat am na externe externe am na ñoo xam ne dañuy jàng di fi féete am na ñoo xam ne dañoo jàng di ñibbi ah. ñaar yooyu am na fi noonu la noonu la doxoon noonu la tëddee ko xamee kon daaray internat la ju ñu booleeg daaray cosaan euh, mu mel ni lim bi nga xamante ne mooy daaray inter ñu ëpp ci daaray internat bi ki lañ féete. Mm-hmm. voilà euh, léegi Serigne Khadim ñi nga xam ne ñoo féete ci daaray internat bi kan mooy yor seen li nga xam ne moo seen dund. dund. ci biir daara ji la ñuy lekkee. ci la waaw dañ leen di jëlal li nga xam ne moo di toggukat mu leen di toggal mhm. mhm. macha allah ñi nga xam ne féetewuñ ci daara ji nag eh, dañuy jàng di wàcc di ñibbi eh, ñoom dañuy fay wala dañuy dañuy jàng rek te yàlla tax fu ñuy lekkee ñoom dañuy delluwaat ci seen waajur yi waaw ñooñu moom dañuy jàng si mhm. huit heures ba midi wàcc dem seen kër waajur takk bu tisbaar jotee deux jàpp deux heures et Euh, trois heures gën kaa sori ñu dugg cinq heures demi ñoom ñu wàcc jàpp six heures am na benn benn yoo xam ne dañ jàng si marax macha macha allah sëriñ Xaadim ci leeral bu am solo boobu nga xam ne la nga ñu ko euh, daaray internat mu mel ni dafa bëri lool ay coono sax naka nga nekkee ak ndongo yi ci biir daara ji ak yenn waxtu la ñuy jàng. waaw euh, waxtu jàng yi buñ xëyee 5 heures la ñuy yow 5 heures matin. buñ joge di jang bañ julli buñ julle ba paré mm. commencé tari mm. buñ taré ko tari rek day daal di wacc mm. digënté bobu 6h day daal di jot japp 7h 7h bu joté dañuy daal di dalu ji top to ji mbir eh, ndek ni su ndeké ba paré 8h jot ñu daal di duggat suñ duggé jang ba 11h wala lu ko jégé ñu tambalé eh, tari raxasi mm-hmm. ñu taré eh, ñu doxal borom bind yi ak ñu war a jël nafar ngoon jël ko bu muy jotee mhm. jàpp mi dee demi mhm. ñu wàcc noppaluwaat ba trois heures mhm. ñu dugg jàng nafar ba quatre heures quatre heures demi ñu tàmbali tari suñ taree foofu nag ñun dafa xam aw xam ak wuuteeg yeneen daara yi ñun dañuy daal di continuer maanaam bu ñu duggee trois heures dañuy daal di continuer ba euh, noddu timis bu ñu noddee timis bu ñu julee taksaan par dañuy jàng bind yi foofu doxal bind jàng ko suñ jullee timis daal di macha allah. macha allah Serigne Khadim ci leeral bu am solo bu ak uh, jëf ju rafet ju ñu nga xam ne yaa ngi koy uh, jëf itam ci biir daara ji uh, Serigne Khadim naka la ndongo yi nga xamante ne nii wala bokk dégg nañ la ki ay biir wax nga ne 2008 nga sosoon li nga xam ne moo di daara ji depuis 2008 ba léegi si yaa ngi biir daara ci alxuraan ji rek nga nekk di yëngu kan moo nekk ci sa ginnaaw di la jàppale wala yow rek yaay dem. waaw soxna Faty laaj boo am solo la fii ñuy wax ak yéen nag dañoo wax ne kon ci yàlla rek moo nekk suñu kanam moo nekk suñu gannaaw moo ñu feete kaw moo ñu feete suuf mm-hmm. yàlla rek lan wékku tayit suñu mbir yëpp ci moom lañ ko aj ci zaahir daal amul kenn koo xam ne moo moo féete moo ñu taxawu fen xanaa lu dul ndimbalul waajur yi ak ñaan ñi xam si ñoo sopp alxuraan bëgg ko mm-hmm. di ci xëy di ci gont waaye ci gàttal daal koo xam si ni ñu ko xamee ci yeneen daara yi koo xam moo nekk suñu gannaaw mm-hmm. di ñu dooleel ñu ngi koy bëgg nag waaye yàlla dogalagu waaye yàlla mën lépp ci kiin wéeru moom ku ci wéeru rek mm-hmm. eh, doo doo mës a daanu macha allah incha allah eh, jërëjëf Serigne leeral bu am solo eh, ndax yaa ngi def li nga xamante ne ni mooy doxu ñaxtu di dem ci ñenn ñi ñi nga xam ne am nga yaakaar ki ñoom moo xam ci kilifa diine yi la wala ci kilifa aada yi ci ñu jàppale la ci li nga xam ne moo di daara ji wala mosoo kaa def. déedéet soxna faati mhm. na lol mom sama sama chat la manam yalla dama bindé ma nekk koo xam ne mhm. uh, wax tayit it dem ci kenn di ko wax lenn donte fi dañ fi nek sax difi fi ak di fi daj lu nek dañ ko dund dañ ko dañ ko mën maîtriser mhm. waaye nak amagul kenn ko xamni ngi taxaw ci yow nako kat soxla na léeg soxla na ni soxla na léeg tayit nit ñi xam na lim soxla bari na waaye loolu moom uh, amalaguñ ko ci kenn mhm. ci ci ginnaaw bi ñu sancee daara ji mhm. boobu ba léegi mhm. xam naa li waroon jiite sax daara ji avant ñu koy sanc dafa am suñuy mbokk yoo xam si suñuy waajur lan suñuy rakki baay ak suñuy magi baay ñoom ñu ñoo jëloon fii dajale woon fi seenu njaboot mu nekkoon lim bu xaw a néew fukki personne jàpp fukki juróom ñu tegoon ma fi ma fiy jàngale gannaaw ba ma jógee Dakar ci ci ci internat Sëñ ñu tegoon ma ma fi jàngal bi ne diir bu ne nag ci ñoom lan xoolee gis njàng mi dox gim dox ak it dëgër gim dëgër ñu responsabilité ma daan may jël daan may samp ci béréb bi ne ma léegi man nga yilif daara ji waaye njëkk lool ci ñoom seen i jëwrin la nekkoon mhm. seenu kilifteef ci la newoon mhm. euh, muy suñu bàyyi kër gi ñuy dendal mhm. muy suñu bàyyi bàyyi Saliou Ndiaye mu nekk koo xam si ku baax la ku lépp moom la bu ma nekkee di jàngal alxuraan rek gannaaw yàlla yàlla loxoom ci ci moom la ko ci loolu euh, dañ ko waroon a njëkkee ay mhm. xam naa bu ñu ko dab dabaatale du wàññi dara du wàññi dara euh, noonu la sax fàtte cër la ki doomu aadama euh, am na solo lool sëñ xaadim sëñ xaadim diirab nga nekk fi ak léegi si ñaata ci ab lim ñoo fi jot a mokkal li nga xam ne moo di alquranul karim waaw xam naa soxna Faati laaj boobu moom bari na xam naa wax leen nit ñëpp ndax binduñu ko ndax bari gi waaye nag eh, xam nga rek eh, bett gi ngeen ñu bett ndax gis ngeen émission bi ni mu demee waaye kon dana leen génneel maanaam sahaada yi ñu fiy joxe yëpp na benn benn yoo xam ñu ngi fii ci gone yi ñoo xam ñoo xam si daaw ci lan wattu alxuraan mm-hmm. ba sahaada boobu sëñ Muntaxa di joxe xam ne si dañ yóbbu ci daara yi mm-hmm. ci xale bi ñu bokk ñu testa mm-hmm. nga jóg fa nga dem sa kër Sëñ Tuubaa ñu teelaat la macha allah ba màggal tubaa gi ci ñi doon am sahaada yi mm-hmm. lim boobu am na si ñoo xam si ñu ngi fii ñu ngi ak sahaada boobu ci gone yoo doon bokk kon euh, lim lu lim la boo xam bu takko takko la mm-hmm. mais lim bi am ci ñi war a ñi mokkalit mënoon nañu am lim bu ko raw mm-hmm. ndax xam nga daara léegi boo gone yi léegi euh, ku ci wàcc rek euh, temps bi dëgg-dëgg doo ko am temps bi nga maanaam li ma bëgg wax mooy ku ci wàcc rek day jéem a fexee bàyyi mm-hmm, mm-hmm. loolu dafay gàllankoor daara yëpp mm-hmm. kon moo tax lim bi nga war a am dëgg dëgg dëgg dëgg doo ko am waaye nag ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax année bu jot gën gaa néew danañ génne ñaar élèves ba gën gaa bari danañ génne juróom kon loolu ak sant yàlla la am na si daara yoo xam ne eh, loolu yàlla dogalu ko ci ñoom nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu dolli ci barkeb sëriñ bi macha allah Serigne eh, Khadim am na solo lool euh, kon ndongo yi daal euh, gën gaa euh, néew comme ni nga ko waxee ñaari xale dinañ fi génne sak année wala lu mat juróomi xale ci ñaata at la ndongo yi di jàng alxuraan. ñaata at pour mokkal mm-hmm. waaw loolu moom duñ wax ñetti at duñ wax ñeenti at duñ wax juróom at duñ juróom-benn ndax xel mm-hmm. doomu aadama yi moo wuute. Mm-hmm. ku ci nekk comme akum akum xelam. waaye daal gën gaa. liñ eh, japp ne gën gaa néew gën ko ko jàng te yàlla dimbale sam xel neex mm-hmm. am ñoo xam dañ fi def ñeenti mokal mokkal mm-hmm. am ñoo xam dañ fi def ñettaat at mokkal am ñoo xam dañ fi def juróomi at mokkal waaye loolu lépp ci ndimbalu suñu borom la moo tax duñ jël benn engagement ne boo ñu joxee sa doom danañ ko jàngal ci ñettaat wala ñeenti wala juróomi gis ngeen ni eh, boo boo indee seen xale dañ lay wax ne la eh, na na ci ñaata at lay da nga leen di wax ci ñaata at lay jàng bu ko defee ñu soog a nangoo indi xale bi wala yéen bokkoo leen ci ñooñu macha allah macha allah Serigne Khadim am na solo lool euh, ba tey rek ñuy laaj ndax daara ji rek moom la Serigne Khadim am ci daara euh, ak daf ko luye wala daara gi daaray boppam la. waaw jamono ji ñuy wax ak yéen nag fii ñu nekk nii moom dañ koo luye maanaam dañuy fay weeru jot am lu nu warloog borom gi. Euh, daara ji kese fi ay naal am nañ ay mébét yu. kawe kawe mhm. yu rëy rëy ñu ñaan suñu borom mu àggale suñu mébét yooyu waaye jamono ji ñu nekk moom eh, dañuy lee fii dañoo lee fii ñu nekk ngeen nekk nii da ngeen kaa lee macha allah ndax am ngeen terrain boo xamante ne nii eh, tey su fekkonte ne jàppandi na moom ngeen di def daara wala amoo leen ko ah kay am nañ ko mhm. am nañ terrain boo xam ne jamono ji ñuy wax ak yéen sax tàmbali nañ ko ba fondement ba mhm. féete na boor di ñaan suñu borom mu kàtt nañu ban yeggale ko jamono fondement ba féete na boor. macha allah ndax man ko léegi ci sama téléphone. macha allah euh, euh, am na solo loolu yal na yàlla mottali naal yu nga xam ne naan nga ko ci euh, alquranul karim ba nga eggale ko nu ko sa njortu suñ xaadim yaay ba tey rek ñuy laaj suñ xaadim ndax da faral di def comme ni ko ñenn ñenn yenn daara yi di defee lu mel ni tarib alquran wala doo koy def. def. jot rek waaw chaque année lañ koy def mais dafa tënkul nag ci année bu nekk maanaam dañ ko tënk rek ci ñun bu ñu amee lim bu mokkal rek mhm. daal di def ah, conférence ah, mais ah. tënkuñu ko nag chaque année rek dañuy conférence saa yuñ conférence rek jàppale dañoo am ay xaafisu ay xaafisu xuraan ba ren eh, xam naa dañ ci ñëw xam mhm, na lu ñuy lu ñuy waajal ah a ngi koy waajal ñu ngi koy waajal ci ci fan la fi mu toll nii ci ban lii la toll waaw date bi mi ngi toll la 30 bii di ñëw. la la 30 janvier bii nii ngeen ñuy def li nga xam ne mooy di tarib alxuraan bi. kon daal mën nañu wax ne am ngeen eh, ñenn ci ay xale yi nga xam ne mokkal nañ li di li nga xam ne mooy di alxuraan moo tax eh, tari bi am. Mhm. incha allah allah ci allah. la ñuy doxale macha loolu passé am na lu mhm. ñuy gannaaw la 30 am na leneen lu ñuy bëgg mhm. mooy waajur bi nga xam si ñoom la seen doom mokkal dana leen proposé ku ko ci man mhm. nga def benn bis boo xam ne da warloo daara ji añ bu baax. Mhm. bu a defee sa doom jooju xëy suba tàmbali tari kaamil bi. macha allah ba takkusaan wala ba tisbaar. macha allah xam daal di ñaan. macha allah ñu ngi koy waajal am na si waajur yoo xam si mokkal nan mhm. seen doom mokkal na. Mhm. nangu nañ ko loolu moom mosoo leen kaa commencé ren ngeen ko commencé. macha allah waaye nangu nañ nangu nañ loolu. am macha allah ndax waajuri xale yooyu noonu ñoom danañ di bëri seen tànk fii di ñëw di nemmeeku si li nga xam ne moo di ndongo yi ak yow mi nga xam ne yaa yor daara ji lu mel ni ci wàllu ndimbal xam am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek ñu fay. comme que dañuy fay rek bu ñu joxee fay gi ñu lay jox moom la ñuy warloo ak yow donte ne alxuraan kenn mënu kaa fay ki kay ki kay jàngale waaye eh, des fois dañ ci gis ñi nga xamante ni nii itam eh, danañ di ñëw di indi li nga xamante ne nii ab àddiyee lañ koy tuddee daal ndax loolu bëri na ñoom. waaw waaw léeg-léeg ñu am ko ay benn benn. Mhm. Eh, xam nga jamono ji moo metti moo xat. Mhm. moo bëri ay jafe-jafe ay bëri ay finance. Mhm. waajur yëpp jàpp na ñoom ñëpp ñoo am yéenay liggéey ci daara ji def ci loo xam si. lu lu faw xa seen njort la mm-hmm. waaye ñoom ñëpp ko yéene mm-hmm. te am nay benn benn yoo xam ne ñu ngi koy def di mm-hmm. ñaan suñu borom mu barkeel leen ñoom ñëpp seen seen seen yëngu-yëngu waaye ñoom ñoo am yéene ji ñi koy def ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax jërëjëf sëñ Xaadim am na solo lool macha allah euh, ndax yow rek yaa nekk ci biir daara gi di jàngale li nga xam ne moo di wala am nga ay jàngalekat yu lay jàppale ndax ndongo yi gis nañ ne lim bi takku na lool sax. waaw am na ay benn benn. yoo xam si ñoom ay jàppale si ndongo yu mag yi. jëlaguñ koo xam ne sax moo ñuy moo ñuy moo ñuy ab sëriñ daara boo xam moo ñuy awu ci kii bi mais donc yi xam si ñoo fi nekk te mokkal alxuraan mhm. te ñuy bind kaay di def yeneen formation ay mhm. xiraa ak yooyu mhm. ñoom it ñu ngi ci mbir kii bi am na ñoo xam dañoo yor classe di jàngale ñoom allah ñoom allah diir bu néew rek ñu dellu si waat mhm. mm-hmm. macha allah Serigne Khadim am na solo lool euh, kon ndongo yu mag yi ñoo lay jàppale ji li nga xam ne moo di njàngalem alxuraan mi ndax ci njàngalem alxuraan mi rek nga yem ak ñoom wala lii di xam-xam yaa ngi koy defaale ci ñoom ak li nga xam ne moo di ab tarbiyu ndax euh, am nañ ne ñuy wax ne euh, daaray internat yi dañu jàngale mi duñu yar ndax yow yaa ngi matale yëpp. waaw ñu ngi ciy def ñu a mhm. mokkal alxuraan ak ñi xam si sori nit miin nan. ñëpp ñu ngi ci ñu ngi jàng xam-xam mhm. ñu jeexal na téere yu njëkk yi ba ñekk ci seen ñi ngi jàng naaju mhm. am ñu sax ñu fiy jàng risaala ak yëpp mhm. euh, tarbiya ak ñu ngi ciy def suñu kem tolluwaay kàttan ñu ngi def lépp lu man di leen yee ci àdduna waaye di leen yee ci di leen xamal li nekk mooy lan euh, di leen xamal ne métti mi maanaam ñoom li ñuy def gone yi daara ji nekk di ko jàng téere bi nekk di ko jàng mooy ngeen gi téere lu riche la loo xam ne si lu am valeur la gëm ko looy da leen ci xirtal xamal leen kan mooy ki xamante ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xamal leen li li nekk ñoom ëllëg kenn du ko nekk kenn maanaam li ma bëgg wax mooy benn donga daar du génn ci daar ëllëg di torox loolu xam nañ ko bu baax baax képp koo gis mu nekk ci mbedd mi rek xamal ne fam njëkkee du daara fekkente nekk ci daara ba daara nopp ci yow lu baree bari bu paree nga daal di macha allah doo ci bokk macha allah macha allah sëriñ Xaadim yal na yàlla defar ñooñ daara ba comme ni ñu ko waxee noonu rek mu amee ni euh, barakatal alquran euh, ñu gis ci biir daara gi góor yàlla yi moo ëpp li nga xam ne moo di soxna yi lan moo sabab loolu wala danga nekkul di jël li nga xam ne moo di soxna yi di leen jàngal. waaw xam nga li nga ko waxee léegi rek xam nga lim bi xaw naa takku. te it euh, ñi fi jàngale. Mm-hmm. gone yi mag yi ñoo ñu jàppale man rek maa fi nekk mhm. jamono ji ñu waxee sax dafa mel ne jàng ñibbi moom dañ ko arrêté woon mhm. gannaaw buñ songee mhm. bu a ubbiwaat bunt yëpp soxna it boo gisee ñu baare woon ko dañoo bëgg rek buñ liñ sumb bu paree a ubbi bunt yëpp bu ko a jël yaa sayda yoo xam ne ñooy taxawu jigéen ñi ñooy taxawu soxna yi ci wàllu njàngale moomu lu si nekk rek ñu ko war a liggéey ba ñu ko war a amee rek ñu jox leen ko loolu tax jamono ji mhm. ñu xaw a euh, kii loolu jigéen ñi xaw fee néew mhm. loolu rek waaw wax euh, jërëjëf sëriñ Xaadim comme euh, leeral yi am na solo lool macha allah kon mu mel ni émission bi daf ñoo xaw a tënk daf ñoo xaw a bett rek comme ni nga ko waxee waaye nag liñ ci namoon yëpp defal nga ñu ko ñu kawee suñu njootu sax sëriñ Xaadim Euh, kon su ko li nga xam ne moo di tarib alxuraan bi nga xam ne yaa ngi koy waajal euh, di la 30 janvier bi nga xam ne moom lañuy jublu si nax ngay programmer loolu nga xam ne moo di tari bi waaw tari bi ñu ngi koy programmer comme ni ko daa programmer rek mhm. incha allah rabbi euh, ci bitti la ñuy baas baas bu xam si bu moxtaara doon mhm. def ci moyens yi nga xam si moom la laaj mhm. xale yi ñoom seeni waajur ndax am nañ benn groupe boo xam ne groupe whatsapp la boo xam ne moo lëkkale ñu ëpp ci waajur xale yi macha si ñoom ñu bëgg alxuraan lan bëgg daara ji ci jàpp mi nga xam ne si moo amee ci ci donga itam mu nekk lu baax lool ñoom waajur yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy pour def ko xam nga loolu ab kii la boo xam ne teggil nañu ko kon waajuru xale yi daal ñoom ñooy ñëw di fóotal eh, ndonga daara yi fóotal ndonga ah, daara doo leen jëlal fóotkat toggkat bi nag ki nga xam ne mooy ah yow yaay xajal waaye ñoom ñooy fóotal seen i doom macha allah mën nga eggale mhm. ñii ñi ngi dëkk Dakar mhm. ñii ñi ngi dëkk ci yeneen gox ah, ah. ñi dëkk ci koñ bi rek waajur yi jege ñoo leen mhm. ndeysaan sinon loolu amul rek day day gàllu suñu kaw force suñu leen jëlal ay fóotkat di leen fóotal macha allah amoon nañ ko ñoo xam ne dañ leen a jëloon di leen di fóotal waaye ñoom bi nee ba xam ne xel Mm-hmm. Euh, daara yi ci Touba yu si ëpp mm-hmm. am nañ kuréel boo xam moom moom la ñu wax ndey daara mm-hmm. ñoo ëpp ca daara ji ci wàllu cet gi ñoo ko amee macha allah ñu xam ne koñ yooyu ni ñu koy defee ñoom dàquñu leen ko ci ñooñu ci lan takkoo proposé ñu àllarba ji jaar ja sa topp amaloon euh, loolu lu am solo la allah conférence boo xam ne ñi mokkal ñoo ko moom am na si ay benn benn yoo xam ne dañ leen di gunge. Mm-hmm. maanaam njëkk a tari ñooñu. Mm-hmm. ñi mokkal it dana leen fa jox seen shahada. Mm-hmm. ñi xamante ni moom laa doon junni léegi ñoo am shahada ci euh, ndigalu Sëñ Muntaxa. taxa it daan ko fay feesal ab shahadaam. loolu lépp ay programme la yoo xam ne mi ngi ci euh, biir euh, dana xew ca conférence bi. am na ay way yoo xam si. way daara la. yëpp ñu koy waajal. am na ay xikam yoo xam si sëriñ bi moo ko wax. yëpp ñu koy waajal ci mbiru. conférence boobu incha allah rabbi le 30 di ci invité yéen waa Mouride TV dinañ def suñu teewaay su neexee yàlla euh, sëñ Xaadim mu mel ni rek émission bi daf ñu waxtu wi daf ñu xaw a jot rek waaye li ci ëpp ci li ñu bëggoon leerlu rek leerlal nga ñu ko ci anam bi mu gën a yemme macha allah sëriñ Xaadim kon xam naa rek su ko defee eh, cant ak ngërëm di ñeel ñi nga xam ne ñoo ñuy gunge fu ñu toll rek waaye balaay loolu rek balaa may tëj sama émission ma sant sa ki nga xam ne moo di sama taaw yaay ngeen gis sañ sa yaay bi nga xam ne moom laa sañ sa tey eh, mën nañ wax ne taaw moom mooy yaay ba tax na firndeel na loolu macha allah mu uh, xamal ma uh, wax ju am solo ndeysaan ne ma man maay nekk ki nga xam ne maa lay njëkk a solol ci biir émission Ndonga Daara yëkkati yére bi nga xam ne moom laa sol ngeen gis ni mu yànjeen ni eh, booleel ma ci nag ne ma addiyey alxuraan daan mu nekk lu kawee sama njort sax ma ngi koy ñaanal li mu bëgg moom moo ko xam moom ak ñi mu bokkal yaay ak ñi mu bokkal papa ndax mbokk papa moo koy jur yaan leen yàlla defal jàmm ak tawfiix mag jooju noonu nga xam ne ku bëgg yaam la waaye ku yërëm ay rakkam la itam macha allah euh, di ma ami saax maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waaye di sant itam suñu xaadim mi nga xam ne moom laa àndaloon jotaay bi di euh, sant bu wér a wér a wér ci jàppandal bi nga xam ne jàppandal nga ñëw émission bi ba mu yemb macha allah di la ñaanal rek li nga xam ne yaa ngi koy sumb di ko naal ci alxuraan alquranul karim nga am ko nu ko wesañ ko kon xam naa suñ xaadim dañ lay jox rek nga tëj li nga xam ne moo di émission bi jërëjëf jërëjëf soxna Faty ñu ngi leen di sant bu baax yaa sa cameraman yi nga àndal eh, di leen ñaanal seen eh, site bi yàlla yokk ko dooleel ko ba fu ñuy dégg ab site rek ñu dégg ko fa fu kawe fu mm-hmm. raw mm-hmm. ci barke Serigne Touba eh, di leen sant bu baax di sant donga yi di mm-hmm. sant waajur yi di sant mboolem dëkkandoo yi di sant mboolem ko képp ko xam yaa ngi ñu seetaan rek di leen jéggalu ci kàddu yi ndax mhm. yaakaar naa tey jii mooy njëkk bi ñu yore micro mhm. di wax lu mel ne site wala télé ndax dañoo nekk koo xam ne ñemewuñ caméra ah, ñemewuñ mbooloo <laughs> dañoo làqatu fii rek di liggéey suñu liggéey soxna Faat nag fexe ba feeñoo ñu du <laughs> xartu la baax mu nekk koo xam si ku bëgg alxuraan macha allah di ñaan suñu borom mu dooleel la macha allah allah yëkkati daara mhm. ndax lii ku koy def rek mooy dangaa am yéene fësal liggéeyu daara. macha allah fësal jafe-jafe yi nga xam si moom la daara di jànkonteel te mu bari lool. macha allah loolu ku koy sarse woo. Mhm. ku jara ñaanal. macha allah yal na la yàlla dooleel. amiin ak ñi nga àndal ñëpp. amiin yaa rabbal aalamiin amiin sant waa daara ji daarul huda. Mhm. di sant suñu sëriñ bi xam ne doon jàngal. Mhm. wala suñu sëriñ ah, fon xaw a jaar. wala yéen a yor daara macha allah bu limee kenn rek. Mhm. amaana keneen bu ko seetaanee. Mhm, dina yóbbaale ñu mhm. <laughs> eh, ci des. waaye mel ne ñi si des ñu ngi ci biir. macha allah ak Serigne eh, Oustaz bi nga xam moo doon jàngal école. Eh, gala Galas Sall. macha allah ñëpp ñu ngi di bu baax di leen ziar. macha allah kon daal ñu ngi taxawlu rek. lu ci jub suñu borom la. lu ci dëng. jàmbur. xeebu bi mm-hmm. moom la macha allah euh, in uridu ila lislaam masataatu wa ma tawfiqi mm-hmm. illa billah mm-hmm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw jërëjëf euh, Serigne Fallou ci tàggatoo bu am solo boobu nga xam ne tàggatoo nga ko ak ñun ci biir émission bi nga xam ne moo di émission ndongo daara yi euh, kon ngeen gis rek tey ñu ngi woon fii ci daara daarul xuda àndoon nag Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne moom moo yore daara ji macha allah ñu fekk fi ndongaam yi yi nga xam ne ñu ngi jàng li nga xam ne mooy di alquranu karim waaye nag mu yar leen ci yaru diine yaru islam teg leen itam ci yoon bi nga xam ne moo di yoonu siraatal mustaxima macha allah Serigne Khadim kon su ko defee rek dañ leen di jox dig daje ci beneen émission ndongo daara ci beneen jotaay Serigne Daara incha allah rabbi di sant ak gërëm bu baax a baax samay technicien comme ni ma koy defee rek ci bis bu nekk rek wala ci émission bu nekk rek Serigne Cheikh Diakhaté sama Cheikh Serigne Omar Diop ak suñu DC bi nga xam ne mooy Serigne Adama si ñoom ñëpp rek maa ngi leen di sant bu baax a baax ak Serigne Kosa Gueye mi nga xam ne moom noppiwut benn yoon te duñu jubbanti di ñuy defar di ñuy teg ci yoon ak di nga xam ne euh, ay nit ñi nga xam ne euh, buñ ku ñu fuñ fuñ ñu fa fekk rek ci ñoom euh, dañ ñu nawloo macha allah suñ ko soo moom euh, cant ñeel na ko bu baax a baax a baax bàyyiwu ma kenn daal euh, ñi nga xamante ne ni itam ñoo topp ci sama ginnaaw itam maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm noppiwuñ benn yoon di ma jàppale ñoom ñëpp rek sant naa leen waaye sama groupe whatsapp bi nga xamante ne nii moo di groupe ndongo daara itam fàttewu ma leen benn yoon ndax lépp rek ñoom la macha allah kon su ko defee rek fale alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa defar sama xel dara ma def ni ma mel moo tax ma wéy daa